ah asalaamaaleykum àdduna bi yëpp oustaz Ahmed Diop Fall mbëkk moo leen di nuyu yàlla yi kese barke bi yow mag xiyaamal ak ba tey bu ngeen ma gisee dafa am lu ma bëgg a wax tuuti ndax fa ñi dama digg ñu naan Dubaï porte à porte ba ma wax ci vidéo bi def bëm àdduna bi yëpp di ci commentaire lu ne nag dégg naa ko ci waaye àdduna noonu la ñii dañuy bëgg ñii di siisu beneen bi damaa gis benn vidéo boo xam si ndaw si gel bi laa wax gel bi dañ koo takkal ak moom dañ ko ko takkal. kon du vidéo bi sax yéen dox maanaam da yàgg na la. aw aw aw. mel ni xaju ndaw yi xaju ndaw yi doog a ci sa tag bu mag la dem ba ci benn kii ba ci benn tournal benn miir mu ngoon la tànk bi gis ni mu ngoolee tànk bi naan day saw. ni xaj te moo li tànk li xaj yu dunde moom leen di jox am na ci koo xam si xam luñ ko defal dañ koo defal collier xaj takkal ko silib boo xam si day am génnu xaj mooy la ca la ci naan aw aw aw aw aw muy xaju du bàyyi yow daal ba pare dégg naa ci am na ci ñoo xam si dañuy sëy ak i xaj sëy ak i xaj ba pare ñu door leen a jox xaalis yow da dem ci collier xaj bi wax xaj xaw-xaw saw-saw xaj ñu siqee ci xaj ñu ñaf la ñafi metti ñu door laa fay xaalis loolu lu ko jar en tant yow mi nga xam ne ni nga foore buñ demee ba ba ba ñi ba am na ci ñoo xam di séeg ay bàyyi ma non non non kon ñun beneen gëm naa ne sax àdduna moom mi ngi waaj tukki yow bi ngay génn dëkk bi xanaa tàggoo sa ndey xanaa tàggoo sa baay yow xanaa xaalis ba ngay jël di ko jox sa mbay ak sa baay du leen wax ni leen ci puubu Dubaay la wala ci ay xaji Dubaay ay xaja mbalaal ba mu pare moo jox la ci xaalis bi nga war ci dund rus war nga ko rusat ca doomu aadama nag lépp loo xam si liggéey na ko bu ci amee xaalis su koy lekk xaar su koy lekk maanaam xelam day nekk ci liggéey ba mu liggéey dëgg du am nekk ñun ñuy liggéey lu baax beneen bi lenn la yéen yéen a ngi yàq jigéen ñi nga xam ne ñooy dem Dubaay am na ci jigéen ñoo xam si ay jàmbaar lañ am na ci jigéen ñoo xam ay bañkat lañ wallaahi wa taalaay buñ liggéey du bàyyi liggéey rek def takk seen lafa sëriñ liggéey doo leen xàmmee sax boo leen gisee doo leen xàmmee wut bagage indiwaat Sénégal dem jaay am na ci góor ñoo xam ay jàmbaar lañ ay ñafekat nañ ni mu amee ci góor ñi noonu la am jigéen ñi am na ci góor ñoo xam jaay taara leen fa yóbbu nekk ci jigéen ñi sumeeku wane dënn ndax maa ngi nii damaa ñëw pour laalaat dugg Dubaay doomu xaj ñu xujj ponkal mu toll yow war a liggéey naan damaa ñëw pour laalaat changement de Dubaay la lii léegi war a suy ak mu mbokk xam leen li ngeen bëgg doomu aadama yàlla da koo fonk fonku leen seen bopp alal ci am ci am day jeex barke yow man xaamal ak man xam naa ni kuñ ci futti bam ni dugg ñu tegle ci guus bàmmeel war naa jébbal suñu borom tabaaraka wa taala ah ku baax di nga xalaat bu fekkante xaj nga woon di jéem ngaa nekk ab xaj wallahi wallahi di nga koy rëccu beneen bi la may conseillé na la Sénégal nag na fi yàlla def jàmm képp koo xam si nii nga bëri pour jëm Dubaay dañ naan wala xam nga kañ la sama xel commencé tey barke bi man ba léegi maa ngi rëy carotte basante nawe nu mu tuddati ah, bi mi ngi tey ponkon mu toll ni yow ñi yow la buum def la xaj ngay cal ci cal naa aw aw fu jëm jëme la mun non non non ko man barke bi man xaaral ak kabar gis nga kii man man su ma aman ci yow dogal yow yow min dafa xàcc ak yow min parat pëcc ci gémmañ su ma aman ci yow dama lay yuutu bëgg ñëw kii kii kii dama koy becc may ma rek bu baax damay wu ma mer. umu ndaay ak baay xanaa umu ma ne umu ndaay ak baay. eh eh. eh aujourd'hui aujourd'hui aussi c'est c'est un autre jour. la ilaha. eh le monde part en couille. non. c'est-à-dire c'est-à-dire j'ai j'ai du mal à imaginer.